mbokk yi nuyu naa dem euh, monsieur le ministre maa ngi lay nuyu euh, bu ñu waxee euh, tourisme wax ay nit yi nga xam ne dañuy dem ci pàcc yu nekk ci réew mi bu ñu demee pàcc bu nekk ci réew mi lu nekk mën na leen dal bokk na ci leen mën a dal jàngoro monsieur le finance monsieur le ministre des finances moo tax ma bëggoon nga bàyyi xel ci benn tomb monsieur le ministre des finances ci les établissements publics de santé EPS yi dafa am situation de contractuels de la santé ñu ngi toll ci juróom benn junni juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent 6859 agents ci établissement public de la santé yi téeméer boo jël juróom ñett fukk lañ ci maanaam 80 pour cent bi ngay nekk directeur du budget monsieur Moustapha Ba tey nga nekk ministre des finances et du budget fekkee nga fi ñuy signé accord bi nga xam ne deux mille vingt deux moo doon joxe ay indemnité de logement indemnité de logement yooyu ñu joxoon agent de santé yi ñoom ñu bokk ci depuis bés boobu nga fekkee ndaje bi boobu defe naa Abdoulaye Daouda jàll moo nekkoon ministre nga fekkee woon ndaje boobu boobu léegi ñoom kenn fayu leen seen indemnité de logement monsieur le ministre bëgg naa quand même say service seen gouvernement ngeen taxaw ci loolu parce que injustice la 2022 ak léegi 6859 agents ragal naa ne ëpp na ay milliards donc monsieur le ministre ma lay interpeller ci loolu ndaxte xam naa ne maîtriser nga dossier bi ndaxte xam naa ne témoin nga woon fekkee nga woon xam nga li may wax te ñoom 6859 pères mères soutien de famille yi nga xam ne ñu ngi liggéeyal askan wi ci domaine boo xam ne wér yaram ñëpp xam nañ ne wér yaram boo ko amulee li ci des amul solo monsieur le ministre bëggoon naa itam ci fànn boobu nga bàyyi xel itam ci application du décret 404 2016 du 6 avril 2016 portant statut des contractuels des établissements publics de santé mi nga xam ne ñu ngi ko waroon appliquer depuis 1er janvier 2017 ba tey kenn appliqué wu ko kon muy ñaari injustice ci li nga xam ne moo dal 6859 agents des établissements publics de la santé sànq monsieur le ministre yaa ngi may won état wu treize travailleurs hôpital régional yu Ziguinchor yi nga xam ne ñu ngi leen ameel xaalis depuis mbas mi muy vingt millions j'espère que dinañ leen fay ci nu ma gën a gaawee monsieur le ministre des finances parce que boobu ak léegi kenn fayu leen monsieur le ministre euh, démb yaa ngi expliquer député yi ci ne Sénégal dafa bokk FMI ak Banque mondiale mu am diggante bu dëgër këng bu dox diggante Sénégal FMI ak Banque mondiale monsieur le ministre des finances foofu bokkuma ci gis-gis ak yow ndaxte monsieur le ministre des finances loolu du wax ci wax ji mooy kuréel boo xam ne moo tax Sotiba tëj munoo wax ne ku munoo wax ne kuréel bu baax la. kuréel boo xam ne moo jur jafe-jafe pour NSTS munoo wax ne kuréel bu baax la kuréel boo xam ne moo tax as yi ñu amoon ci ay industrie mënal suñu bopp ci wàllu piis ak feneen ak feneen mu tëj kuréel yooyu munoo wax ne ay kuréel yu baax lañu monsieur le ministre kuréel boo xam ne moo ñu imposer nouvelle politique agricole ak nouvelle politique industrielle yàq suñu mbéy ba tey jii nii ñuy soog di commencer wax souveraineté alimentaire monsieur le ministre des finances kuréel boobu mënul nekk kuréel bu baax monsieur le ministre des finances kon ci fànn boobu ñu sommes divergents waaye divergence nag mun nañ bañ a tojante bopp divergence nag mun nañ bañ a yóbbante kaso divergence nag mun nañ bañ a complowante divergence nag jarul ñu ci tëj ay doomu aadama divergence yooyu moom la ñu am bu baax a baax et Sonko cinquième président du Sénégal dina changer les relations entre le Sénégal et ses institutions que sont le FMI et la Banque mondiale ndaxte kuréel yooyu nekkul ay kuréel yu baax pour askanu Sénégal nekkul kuréel yu baax pour bépp askan yu nekk ci àddina bi am na benn ministre bu am lu mu wax mais yow ba léegi waxagoo ñu ban kuréel. le FMI ak Banque mondiale développé ndaxte au moins dama yaakaar ne am nga honnêteté intellectuelle et que débat lu mu neex neex neex neex neex am na loo xam ne mënoo ko soutenir donc kuréel yooyu c'est une erreur de votre part c'est une erreur de ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nangu di def allégeance à ñoom ndaxte mënuñu développer réew mënuñu développer euh, askan monsieur le ministre euh, des finances kon bëgg naa xëy na euh, bu ci kanamee nga indi ñu ay leeral ci notamment la situation euh, des 6859 agents contractuels des EPS fi may daanelee rek mooy fenn Sonko mooy suñu candidat incha allah Sonko la ñuy fay la ñuy fal cinquième président de la République du Sénégal mais lancer un appel à tous les Sénégalais et à tous les patriotes du Sénégal parrainage bi mu ngi soog a commencer un million deux millions trois millions de parrainage de parrain nañ ko utal basiru Diomaye Faye mi nga xam ne suba ñun ñëpp patriote du Sénégal ci Afrique ci àddina si nañu mobiliser wu pour wan président Macky Sall ne lii mooy tontu bi ñuy indi ci manipulation justice bi mu def ajuma et que Ousmane Sonko on peut l'emprisonner mais on ne peut pas le vaincre un patriote il peut être emprisonné mais il ne sera jamais vaincu donc sénégalais de Saint-Louis à Kédougou de Dakar à Matam de Kaolack à Fatick de Touba à Ziguinchor nañu mobiliser wu en une semaine deux millions trois millions de de pour Bassirou Diomaye fay ñu wan leen ne mbir mi jeex na nga jënd say 40 milliards de ngànnaay jënd say 40 milliards de ngànnaay yow Macky Sall bëgg a xeex ak ñun ñu ne la xeexuñu élection lañuy dem ak yow bëreek yow daan la gañe la jëlee fi yow ak sa parti yow ak sa coalition taxawal fi ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko cinquième président du Sénégal je vous remercie